mais également comme j'ai l'habitude de le dire bon pour les Marichou dafa nekk loo xamante ne yàlla la yàlla moo si teg loxo donc euh, succès bi le fait que nit ñi dañuy suivre lolu mom je pense que 12 ñun du suñu mën-mën yalla la quoi mais ñun ñi ngi def tout ba nga xamantene tay sénégalais dinañ côté du ñuy suivre franchement et ça lolu rek moy suñu suñu suñu mébét quoi. moom ñoo xam ne ne tey jii interview bo xamné né nii Pod dina ko def wala dina ci génn internet yi tey dinañ bëgg am benn question boo xam ne ne tey dafa nekk ci ñoom ñi nga xam ne ñoo démarré woon Pod et Marichou bi ñu ci bëri gis gisatuñ leen ñii ñii ñii départ nañ c'est c'est quoi le problème au fait. en fait c'est que moom laa expliqué gars yi c'est que euh, Pod et Marichou nekkul troupe Pod et Marichou dafa nekk leen loo xamante ne tey euh, série la boo xamante ne ku ci nekk dañuy dugg benn par benn ay scénario la bu ñu bind. léegi scénario bi ñu bind dafa am acteurs yoo xam ne dañuy dugg am na ay acteurs yoo xam ne moment bi leen scénario bi soxla la ñuy dugg suñu xoolee tonton Tafa démarré démarrer le premier épisode mais feeñ Si tu mets Agbo, ak démarré il mais feeñ tu mets démarré donc nous ak ak Nous donc nit ñi c'est-à-dire que écarté wuñu il faut que nous ñi xam Nous amul ben acteur je le parle je parle devant la caméra amul ben acteur Nous on Nous ñëpp réunion tous les acteurs ñu ñu projet maintenant il y a un scénariste qui bind venu. Il bind moment bi nga a dugg moment mais. il n'y a aucun problème. il n'y a aucun problème c'est-à-dire que bon acteurs c'est normal classé 11 xam nous classé 12 jours classé 11 dina am yeneen joueurs c'est normal ñu gis ne que am na yenn acteurs yoo xamante ne commencé gu ñu jouer mu xool leen frustré tuuti ñun ça nous fait plaisir xam nañu ñii ils sont motivés comme ça moment bi ñu dugg nag dañuy def jom loolu la. loolu la loolu la c'est important loolu dégg ngeen li nga xam ne loolu la Pod wax waaye mu am innovation de taille boo xam dafa am ci Pod et Marichou saison bii nii nga xam ne ni mi ngi cartonné il y a beaucoup d'innovation côté anglais bi les gens parlent anglais côté français bi aussi gars yi basé aussi bu baax a baax loolu lan la quoi voilà donc euh, soo xoolee côté français bi c'est parce que tey jii nii couleur film bi du ma ne couleur film moo changé parce que côté Marichou changé wul benn yoon mais tey dafa am benn côté bu évoluer ñëpp gis nañ ne léegi côté entreprise bi daf si gën a am doole. mënuñu woon tout le temps top ci série bi ñi nekk ci kër gi ñi xulo awo ñaare rek di xulo xam nga film day évoluer loolu suñ ko continué waat defaatoon nit ñi dinañu ne li ngeen def soof na. donc tay il faut que ñu évoluer tay ku ci melni marichu faut foog rôle am évoluer ku ci melni Eva tamit même chose donc tey jii nii gars ñu xam ne que légui acteur yi ñi ngi mag loolu la si am solo làkk français bi c'est normal parce que tey suñu ñu nekkee bureau mu ñu fa làkk olof xam nga mais tey c'est vrai dinañ doser affaire parce que film la fii mooy objectif bi déjà sénégalais yi mais également anglais bi soo xoolee ñun on a un public large dafa am ñoo xamante ne waa Gambie dañuy seetaan rôle Keïcha bi te muy làkk anglais tey jii nii loolu day gën a indi public gambien yi gambien yi xam ne ñu leen di bàyyi solo parce que man dem naa Gambie gis naa ni ñu gambien yi di suivre ni ñu bëggee mën naa ne sax bëggeewuñu fii noonu donc tey jii nii yoon dañ leen di def un coup d'œil mais même ci lépp lu mu mënti wax Keisha même su làkkee anglais je pense que day làkk lo xamantene tay tey soo di nga mëna comprendre quoi. saa Pod wéet na Pod nu muy dundee instant bi divorce bi nan la ko Pod di dundee wéet waaw gis nga tay actuellement mom la lay euh, wax rôle bi dafa nek rôle bo xamantene tay tey nga nekk góoru ñetti jabar nga dem ba un moment bo xamantene ne jékki-jékki rek nga ñak say jabar nekkatul lu yomb nekkatul lu yomb et tay day jangale ñun lepp lu ñuy jouer jàngat la nga nekk góor yow say ñetti jabar yaakaar ne yow gu jigéen bu nekk jomb la mais nga dem ba un mois bo xamantene nga nekk célibataire c'est comme si tu reprends à zéro voilà gars yi nag ñi ngi ma naan dama jëli Marichou ñi naan ma ay <laughs> ñi naan ma ay voilà euh, mi ngi nonu ay bàyyil béti en fait je pense que c'est ça le charme de Pod et Marichou quoi mais aussi ñu ñu gis si leneen beneen innovation aussi mooy la vie des des entreprises la concurrence des entreprises c'est aussi la innovation l'innovation, parce que si concurrence Marodi ak ak Eva ak Marichou dañu concurrence ci biir gi ñu mais cette fois ci cette concurrence nekkatu ci biir kër gi mais bi la day évolution mais so xolé ñi même aspect aussi Momo oui day évoluer Momo tey ni nii président la bëggoon nekk di bëgg xeexal dëkkam mais tey il a l'opportunité di xeexal dëkkam ci biir rajo bi moo tax ñu koy la voix du peuple c'est comme un député je pense que moo gën noble sax président de la république waaw donc tey ni nii Momo li def il est dans son combat mais également dafa am ñeneen ñu koy carré. mooy maanaam au centre de production foofu tamit day day wane benn genre dualité benn genre concurrence ci le média cette fois ci moom dugg nañ si média yi te li am ci média yi loolu carrément mu am quoi et on donne aussi des leçons. donc Phoenix aussi Phoenix et Marutus ce sont ce sont des entreprises qui sont réelles bien. non en fait euh, c'est réel ñëpp xam nañ hein? mais tey Phoenix c'est pas réel Phoenix c'est c'est c'est c'est nii lañ hein? c'est c'est comme euh, Media Perfect de Central Production hein? est-ce que par exemple aussi pour Phoenix ngeen le, doon le, concret. ouais mais pourquoi pas su même par exemple benn groupe bu ko bëgg a fësal <laughs> waa gis nga Sankara moomay de fii quoi ouais mais gis nga donc du coup euh, pourquoi pas bon on sait jamais hein, mais bon ñun personnellement prévoir ñu ko quoi. tey nag ñu tasante ak yow fi nga xam ne ni moom mooy perfecticisme ci Mermoz Adja mom, que di ko inauguré tey pour teew fi relation avec Adja là. voilà donc on s'est connu comme ça euh, mu contacté ma wax ma projet bi donc euh, ba ma ñëwee j'étais agréablement surpris ah gis naa décor bi di nga xam ne lii nii du lu ndaw quoi nek na lo xamantene li financer financé nañ ko te man ñun dañu bëgg lolu tey jii nii doon na am ay. on dirait que pot il croit en des projets. non mais bien sûr parce que tey jii nii lii la Marodi ba muy commencé ba ñi def suñu série ñu won fi mais tay dañu dem nga xamantene gëm nañ ne tey jii nii. ay téléphone gën commencer waa gis nga non bon pas téléphone ah <laughs> mais tay je pense que tay bon ñu ngi def ay cinéma ay ñu ngi def ay euh, ay produits yo xamantene yu am qualité la te tay so gisee c'est à l'image de Perfectissime tey jii nii. Moi, bi sax daf si quoi perfect quelque chose ça dit quelque chose qui tend vers la perfection et exactement nekk na loo c'est c'est important en tout cas man j'étais agréablement surpris ba ma gisee institut bi c'est bien fait c'est très joli et li le liggéey rek ah parce que li ni nit ñi suñu ko gisee dañ fi bëgg ñëw ah c'est agréable ouais gars yi suñu ko gisee dinañ si kontaan Pod on va bientôt dire bye bye 2019 bientôt on va accéder à 2020 lan ngay wax ñi nga xam ñom ñoy say fans ñi nga xam dañ lay bëgg di la sur toutes les réseaux sociaux sur Facebook sur Instagram sur YouTube sur Snapchat lan ngay lan ngay wax sa bah, fan fans Mes fans, je leur dis de continuer à nous suivre Nous sommes que ñun tey les plus lépp pour ñu la ah donc je euh, leen souhaite encore tamit bonne et heureuse année 2020 parce que 2020 bi nekk année boo xamante ne yaakaar naa euh, année le mbégte 2020 d'accord ñu 2019 lépp loo maintenir tous nous nañ ko si lu bon si lu 2019 bi ñu fàtte ko et 2020 ñu dem si yeneen perspective yu gën a baax xol yi rafet xol yi nekk benn ñu jàppoo yaakaar nañ Sénégal loolu rek moo fi manqué am nañ talent am nañ lépp gars yi fii nii c'est des gens bien tey jii nii nañu boole xol yi rek nekk benn Sénégal jëm kanam waaw ak ànd ak théâtre grand théâtre mais Pod seddaay bi métti na de xanaa xanaa Marichou nga njëkk récupéré non sa keroog na waar xanaa mais instant fu mu toll nii neex na bàyyi ma nekk si célibat moom neexagul parce que mel na assistant bi nga bëgg a jël. assistant bi tamit a ah, waxal rek. njool mi Aliou njool. tey nag en plus bu tey. dal dafa xaw a différent ak sama yeneen jabar yi moo tax kooku waaw naa si bàyyi xel. mais jaay nañ la bande ah. da ngay liggéey mais mais mais amul génn. waaw mais nga xamante ne jaay doole la. mais xanaa xale bi daa bari ba léegi. non daa bari ba léegi rek ay bañ. man su ma dee si xolam. xam naa loolu. <laughs> jaajëf Pod internet Grand Théâtre point TV lan nga leen di wax. Ouais, mais je vous dis de continuer à suivre Grand Théâtre TV. Ligue et merci beaucoup. Quoi. On est ensemble.